Donc, euh, si souba, euh, vers 8h05, euh, euh, si souba si. Donc, euh, secours, nous avons fait côté Rifis, plus précisément centre de secours de Djam Nyadjo. pour ben accident euh, sur l'autoroute à péage. Nous Dakar Arena, Djam Tengej. Donc, ce que nous avons constaté, c'est accident Donc, nous avons auto, un bus transport en commun bu joggé Fouta ak ben camion citerne cause nak ñun xamuñu ko peut-être enquête bi bi nga xam gendarmerie ko diligenté après dinañ wax lu leer maintenant ci kaw lolu it amna ay nit yu si ñak sen bakan en tout cas euh, euh victime yi ñi ngi toll ci 62 donc bok xayma day nek ñet nit ñoo ci ñak sen bakan juroom ñet ñoo ci nek ay blessé grave yu grave grave ah Euh, juróom fuk ak ben ñoy ñoy ñi nga xamné ay blessé léger lañ mais yoy yep yalla def na bañu évacuer len ci ci ci jam jàmm donc euh, ba euh, corps sans vie moy ñi ñi nga xamné dañ ci ñak sen bakkan mo amone xawoon am quelques difficultés parce que daño daño coincé woon ci biir auto bi mais donc avec les moyens euh, yi nga xamné ne BNSP yor nañ ko dindi nañ len ba instant bi ni ñu ngi non di di len yóbbu vers les morgue de euh, ci hôpitaux yi nga xam ni comme yu mel ni Dantec ñi si jot a ñàkk seen bakkan boo xoolee entre euh, quatre ans ba trente ans la waaw